neexul benn yoon euh, te nag euh, Covid bi ak jafe-jafe yi nga xam ne def na ko fii su boo nag bu ñu ci jëlul ay matukaay euh, dette bi nag maanaam suñu bor bi nga xam ne nee nañ bor du am rakk waaye ñun suñuy boor dafa dem ba am ay sët ci boppam fii ci réewum Sénégal dana dem ba 73 pour cent du PIB. stock bu euh, dette publique bi nag mën na sañu wax ne mën na yegg ba 75 virgule 1 pour cent du PIB en 2022 looloo tax nag fii ci réewum Sénégal yokkute gi ñu koy nemmeeku góorgóorlu yi di gën di nekk ci ay jafe-jafe des di doon ay góorgóorlu ba tey te yaakaar ñu benn yoon ne kon dinañ génn ci euh, yoonu góor góorgóorlu bi ñu nekk ndax nag la ñoom dañoo jàpp ne kon lii bu wëyee ñii di ndóol dañuy gën di ndóol rek ñii di am di gën di am te jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ngi koy dund nag euh, bor bi nga xam ne Sénégal am na ko yaakaar naa ne kon am na ca wàll ñu waxtaane ba tey Njombe la nga xam ne moom moo am ñu ne ab dal moom moo euh, màbb daanu lu foofee sa diwaanu euh, Kaolack lu mu gàtt gàtt ñaar ñoo si ñàkk seen ak euh, bakken waaye jàpp nañu it deux retrouvés morts dans un bassin de rétention foofee sa Mbàkke xewaat benn bassin la bu nga xam ne nii am mbalk daanaka mënees nañu ko jàppee noonu ndox mi dañ fay faral di daje am na ñaar ñu nga xam ne ñoo fa na ñaar ñu fa ñàkk seen ak bakken Euh, foofee sa euh, ndox ma l' accident yi ñu koy faral di wax ñu si joxañ baaraam démb rek euh, tali yi na mu jagadee na dañuy wax ne kon yenn say accident yi nag tali bu bon bokk na ci li koy sooke ñu ne nag yéenekaay bi samp na laaj def point d' interrogation ani fu milliardu ferraille yi jaar ndax nag entretien tali bi yaakaar naa ne am nañ si wàllu yaatu te koppa dañu ko tey teg kon nag cin faqul banul yax ba sa nekkoon ne mes te liggéey ba ñu leen santoon daanaka ca bëri gis ko point d' interrogation bi daal di dikk yéen kaay bi ne kon milliards yi nga xam ne feera yi lañu ko jagleel ngir nag entretien de routes du Sénégal ani fan la ñu ko dugal yéen kaay bi samp na laaj bi yéen kaay bi dikkee également ci président Macky ba tey nag lii di xeeñ diggante euh, wala sax fii ñu dëgg di 2024 président Macky Sall waxagul kàddoom gu mujj jëm ci mandat bi maanaam troisième mandat boobee nag yéen kaay bi nee na moom wax fa dëgg neex yàlla man moom li mu gis. moo di président Macky Sall teggeegul bëtam ak xelam ci troisième mandat fii ci réewum euh, euh, Sénégal ndax nag doxalin ngi ñu nemmeeku nii impunité bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jagleel képp nga xam ne ni luubalkat nga euh, détourneur wala escroc wala meurtrier diggante deux mille ba deux mille vingt deux loole dafay firnde ne kon président Macky Sall li ko tax a jóg moo di troisième mandat loi d'amnistie loolee nag kii di Ngouda Mboup enseignant chercheur en droit publique sa université Cheikh Anta daanaka wax na ci bu ñu desee ndee ci wàllum euh, loi d'amnistie boobee bu fekkee nag Karim Meïssa Wade ax na xalifa Sall ñaari cas yi euh, loi bi dal na seen kaw ba ñu rek mujj retrouver seen i droit ngir mën a voter bokk ci ay élection fii ci réew Sénégal samp seen dënd kon nag daanaka Euh, carte gi dañu koy baatre waat comme te nag amoon na ay candidats yu taxawoon ba noppi bien boo ñu xam ne boobaa yeneen candidat dana sa yokk la dikk gis nga Ousmane Sonko ma nga ca euh, Bougane Gueye Dany ma nga ca euh, Thierno mi ngi ca njiital GP di Malick Gakou ma nga ca su boobaa nag da ngeen ci yokk ki nga xam ne moo di Karim Meïssa Wade ak nag Khalifa Sall xam naa ñëw Karim Meïssa Wade moom fii ci réew mi moom xam naa dana xaw a doy waar loolu te moom xam naa na mën a réew mi te boobaa waa parti démocratique Sénégal événement bu mag la ñu koy def Euh, ñu jàll ci euh, Walf euh, Quotidien présidentiel 2024 fi mu nekk nii président Macky Sall maître du jeu en tout cas laaj la laaj la ndax fi mu nekk nii pexe yu muy teg nii yëpp du lenn lu dul fexe ba Sonko ak Mimi Touré du ñu tekki dara ci réew mi wala dootuñu amati njariñ politiquement politiquement Ousmane Sonko ak Mimi Touré ñu daal di isolé ci li nga xam ne mooy présidentiel 2024 mën na ne am manul nekk en tout cas lu waay man a nag euh, wax war a xam ne kon nag kii di président euh, Macky Sall politique na daanaka am na la mu ca man de ndax nu muy doxalee nii heure bu ko neexee yëkkati heure bu ko neexee teg doy na waar bokk di battre ay kartam te saa bu battre coow jib te du tere rek day doxal en tout cas waaye nag élève euh, kii la de maître Abdoulaye Wade te ku jàngee ci daara yi Abdoulaye Wade moom ah faw faw nga am loo mën Vox Populi dafa ñëw ci kii nga l'école bi école sénégalaise ubbi na de Euh, jëwri bi ñu dénk nag wàllum euh, njàng mi kii tootoo tàppaate la wala euh, kii Fofana. ah tootoo tàppaate. tootoo tàppaate paate tàpp tootoo en cas wax na ay priorité am jëm ci wàllum njàng mi li ñu bëgg nag moo di ren ji ubbi tey jàng tey te coow bañ a am benn perturbation bañ a am ndax quantum horaire bi bañ a impacté en tout kaay bi dikk na ci yéen kaay bi dikk na également si coowal Kaliphone ak soxna si que tuumaal moom Kaliphone dañ ko téye di en en attendant ñu xool. ñu jàll ci euh, grand place dafa ñëw ci euh, ferrailleurs yi nga xam ne doon nañ wax fan yi nee nañu nag fi mu nekk nii indien yi sonal nañu leen lool nag fi mu nekk nii wañ mënatul des ci réew mi ndax indien yi euh, ban wañ bu ñu romb ci mbedd mi gàddu nañ ko yóbbu taaloo ko loolu moo nekkoon seen liggéey fu mu nekk gisatuñu seen bopp Euh, boo xefee sax ñu romb yaasin wekki ay jaaroom yóbbu ndax wañ la ñuy bañ a gis ñoom euh, ferrailleur nee nañ indien yi fu mu nekk nii lépp luy briller rek wala lépp lu ñu <laughs> booy romb jékki-jékki gisatoo say jaaro rek wala nga takk benn affaire jàppal ne indien nañ ko. sab long-long <laughs> say long-long waaw moom daal long-long la ñuy bañ gis wala wañ daal du nekk wañ rek waaw du <laughs> nekk wañ rek ferrailleur yooyu nag nee nañu parce que loolu seen secteur la te fu mu nekk nii nag sonal nañu leen ci lool le témoin dafa dikk ci amnistie bu Karim Meïssa Wade ak nag Khalifa Sall nee nañ nag fu mu nekk nii euh, président Macky Sall baatere na carte gi carte googee nag ñu baatere moom la le témoin doon gëstu Abdoulaye Balde ñu dénk ko APIX nee nañ crack la de borom xam-xam la ñu dénk ko chantier yi euh, loolu nag yéen kaay bi si la dikk moom le témoin Sud Quotidien fi mu dikk moo di projet d'amnistie bu Karim Meïssa Wade ak kii di Khalifa Sall quand Macky bruit le troisième mandat parce que nag xel mu ngi ciy teey ba léegi ndax fu mu nekk nii ñu bëri dañoo jàpp ne président Macky Sall ak amnistie bi daf leen bëgg xamal ne seeni i élection intéressé wu ma jàkk jàngoo ku mën a nodd na nodd te nañ fexe képp ku bëgg ku mën a bokk ci élection yi ñu bàyyi la nga bokk wala képp ku bëgg a bokk ñu bàyyi la nga bokk donc comme te ñoom ñoo doon wax Khalifa Sall Karim Meïssa Wade dañu leen war a bàyyi mu bëgg leen bàyyi rek ñoom bàyyi leen ak seen i élection ngeen sëmbaxloo en tout cas président Macky Sall fu mu nekk nii kenn xamagul daal tànk ba muy doxee euh, ci wàllu euh, politique sur ñëw na ba tey ci euh, euh, maître euh, Dioma Ndiaye bi nga xam ne si am na si boobee dafa xam ne ni kon am na si buñ ko xësee ba dogal rek bu yeboo ñu xam ne kenn am ci droit wax dafa mel ni ardoise boo bind ba mu fees ñu effacer lépp lu ci nekkoon day daal di vierge set ci lay def waaw comme te set wecc ci lay def nag kenn amatul droit sa wax si boo si waxee déli lay doon kon nag képp ku ñu jéb jég jéggal te amnistie bi daal sa kaw ba ñu jéggal la kenn amatul droit wax si dañ lay bàyyi dootoo defati dara day mel ni liir bi doog a juddu réew mi quotidien nee nañ lu mu gàtt gàtt ñaar fukk ñàkk nañ seen bakken si diirub ñaari fan ñaar fukk ñaar fukk waaw vingt euh, maanaam euh, dix jours maanaam euh, fukk ñàkk nañ seen bakken si diirub bés bu ne si diirub quarante huit heures yi donc bu dee vingt vingt si quarante huit heures yi donc dix jours yi rek waaw waaw dix morts par jour dix par jour xam nga loolu doy na waar deux jours vingt jours waaw donc deux jours yi mu nekk vingt xam nga ne euh, euh, euh, benn fan. fukk faatu waaw li accident si noonu ambulance la. wala wala photo bi non ambulance bi dafa ñëw photo bu ñu illustré ah bii nii. waaw dañu doon illustré. waaw El Hadj Ibrahima Lo sociologue la nee na dara warul ko lu yoon yu jagad yi. Mhm. accident yu bari yooyu yoon yi jagad yi la. Yamar Ndaw moom it sociologue la ak psychologue nee na fii ci réewum Sénégal dawal fi moo metti parce que boo respecté sa code de la di nga mbëkk nit. parce que nit fu mu warul traversé lay traversé euh, euh, oto yi fi ñu warul taxaw la ñuy taxaw yow nga respecté code de la route sax boo di nga mbëkk koo warul mbëkk te sa yoon du du ci nekk donc Sénégal da ngay dem ca code de la route bopp rek sax sa xel sa xel mu dal euh, nee na dawal ci fii ci réewum Sénégal moom moo moom moo metti quoi moom yéenekaay bi foofu la foofu la dikk loi d'amnistie bi ba tey nga xam ne moo lëmbee réew mi jamono ji amnistie au Sénégal loi d'amnistie nee na nag dale ko ci am Abdoulaye Wade ñëw ci euh, euh, euh, Abdou Diouf ba Macky Sall nee na ñëpp xam nañu amnistie moom pour régler problème politique rek la. defuñu ko te yàlla tax def te yàlla tax ci amnistie nee nañ amul fii ci réew mi Le Quotidien nee na jël ko ci Abdoulaye Wade Léopold Sédar Senghor ba ci président Macky Sall mii amnistie bu ñu def rek c'est parce que am na ay calcul politique yu nekk ci ginnaaw donc def te yàlla tax taxu leen jóg. ubbi teg l'école ji góorgóorlu yi ñëpp ñu ngi ko doon jàmbat. li nga xam ne moo di fourniture yi cher na. inscription bi dikkagul mu diggante big cahier livre euh, euh, euh, yokk na lu jëm ci cinquante pour cent donc lu doon jar fukk léegi mi ngi ci ñaar fukk lu doon jar téeméer mi ngi ci ñaar téeméer donc nag jëm ci frais d'inscription yi boo koy xayma quatre cent mille la lu mu gàtt gàtt rek nga génne quatre cent mille jëm ci frais d'inscription yi donc nag metti na lool Euh, Cheikh Oumar Anne ministre de l' éducation nee na défi bi ñu war a relever <laughs> moo di euh, euh, solidarité jëm ci wàllum njàng mi coow bañ a am mu ak dal daal di am kantom erreur bi bañ a impacté la xew nag sa Touba Ndorong yéenekaay bi dikk na ci horrible nee na def lu horrible la drame la sa diwaanu Kaolack benn dal bu màbb benn borom kër ak ñett ci ay doomam yaakaar naa ne si taax bee màbb seen kaw loolu nag euh, mu ngi xew foofee euh, sa diwaanu Kaolack Touba ndoroon moom la yéenekaay bi dikk di libération affaissement d'un immeuble euh, dal ci kaw ak njaboot ga nga xam ne ñoo nekkoon sa biir sa Touba Ndoron tragédie boobu nag nee na ñu le corps sans vie borom kër gi di Mamadou Sow ab néewam moom ak ñett ci ay soxnaam ak benn doomam ñoom nag yaakaar naa ne si xaaja guddi maanaam yéex nañu leen génne ci fii nga xam ne moom mooy si euh, décombre yi si li nga xam ne mooy gravats yeex yooyu euh, am na ci euh, benn koo xam ne sax ñu ngi koy seet ba léegi mu jéguñu ko woon génne donc ouvrier bi toujours sous les décombres donc lu metti la lu xam naa nag comme ni ngi wax naan ouvrier daanaka kon na dañ doon liggéeyaat kër gi xam nga parfois nag liggéeyaat bi sa mbir di am hmm. waaw liggéeyaat bi parfois sa la mbir di am xamaguñu nag enquête bi dina ko andi waaw enquête bi dina ko andi parfois tabax bu màgget nga koy rafistole am na noo ko war a defaree sinon mm-hmm. dafay bu sa kaw mm-hmm. euh, le gouvernement euh, fixe le cap sur euh, deux mille vingt cinq jëm ci wàllum courant bi accès universel à l'électricité donc donc courant yi euh, feex deux mille vingt cinq yaakaar na ni kon dootul amati wala boog dootul metti comme ni ñu koy faral di nemmeekoo. ñëpp jotandi ci. ñëpp am mu maase mu maase voilà dootul am dog-dog yi nga xam ne dañ ko nemmeeku dëkk kaw yi tamit. courant bi daal di fay maase mais bu maase it njëkk yi nañ fexe ngalawaay na wàññeeku rek parce que courant bi moom euh, muy euh, woyofal beex li ci suuf moom garaaw na di 4 millions de personnes risquent donc une mort euh, subite loole euh, situation de maladies du cœur au Sénégal ah, jàmbatu feebaru xol moo xam waaw feebaru xol dafa bari nag ci ci ci ci suukar si. ak ñàkk de ah, man ndax café gu bari gi may na café bi am suukar su bari si moo tax nga may avertir. ah. dee leen def sport xam nga classe ah, moom xam na nuru woon na kuy def sport mais yaa ngi yàq ah suma dagg bi nga ne fii yaa yaa na moom daggam moom moom moom moom Mamadou Fofana yow Mamadou Fofana fii yow <laughs> yaa ngi gën a jaraaf dama lay wayal jaraaf de <laughs> jaraaf jaraaf pré bii nga naan <laughs> boo seree pré doo taxaw régi wan leen ma foofa na waaye dina def sport. ngir yàlla boo mënee zoomé man au moins sañ naa taxaw ana caméra bi ma def. man si zoom leen ma. man sañ naa xoolal tàgg bi jógal taxaw. jëlal tàgg jógal taxaw. xool plateau bi day benn benn mbindeef day moo fi toog amul biir moom yaramam. moom yaramam. te leer na ma ni maa ngi nii dundin gu saa am muy Alaaji Mansour. kon man nag ma cee waaw li si des ñëpp ay jaraaf lañ. Eh, gàddu seen dëkk di dem moom. xool maa ngi nii ah ay xale yu ndaw. <laughs> kenn moo fi kenn moo fi diri yaramam. dama lay fàttali histoire Pape Mante bu démb bi de. ah non <laughs> <laughs> histoire Pape Mante beex na nga ko ba ka yokku loolu kii la daal ba mu du boppam nag la daal ci plateau bi ak ah, Fabrice. yow man dama galgal rek nga foog nga xool ba xam. fii voilà kon di àppat dikkati na ay jamono day dañu ne woon Sénégal fa nu jëlee fa nga ñu jëmee ko gën tribune yéen kaay ne saa si tembe day Sénégal mi ngi jagat-jagateeg ñun ñu fo xam ni ndox amu fa saa si tembe réew mi lépp daal di metti tribune ne ko fam nu jëmee kay ndox fa sax faf amul réew mi daal di metti lool situation économique boo xam ne bu réewum senegal daanaka ay taf yëngal lambaatu dong lañ nekkee yéen kaay yib dee média bi ne ma banque mondiale de moo taxit daal dinay tiital lool réewum Sénégal aku gafaam ay plan di feem xam ne tegoon nañ ko ngir xeex covid yokk nag jafe-jafe yi nga xam ni fëkkal na poosug réewum Sénégal bor bi nag daal di ñëw daal di nuy faagaagal fayal laaxu bor bi nga xam ne amee lañ ko bitim réew soo ko xaymaa ci sunu PIB ma nga toll ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak ñett te ci biir 2022 bii boo moytuwul nag mi nag dina yokk téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom ba teg sax benn faf xiif mar ak jaaxle saa si tembe moom moo am ci réewum Sénégal tribune yéene kaay ne ma ak ay faatu yoo xam ne doy na waar lool ci tali bi yéene kaay bi ne ma waa milliards yi nga xam ne nee ñu def nañ ko ca feeraa ba di mujjee yéen kaay bi dee média nee ma faatu yi mel ni tulleeg maa la ci réew mi ab dal daal nay daanu ca diwaanu Kaolack ñaar nit daal di cay ñàkk seen bakkan libération yéen kaay ne ma yokku ca ñett moom ma Mamadou Sow mi nga xam ne moo dëkkoon ca immeuble ba ak ñett ci soxnaam ak ay njabootam moom Mamadou moomee fekk nañ ko ci suufu xeeri mu daal di faatu gis nañ néewam laata moom yéen kaay bi ne ma soxnaam moo faatu woon ak bébé boo xam ni ñetti ayu bés dong la am mu ko nampal beneen ouvrier bu doon liggéey moom it ma nga ca suuf ba nii kenn gisagu ko fukk ak ñett ci am ay gaañu immeuble boobee daal di daanu ñett ñi ñu ngi ci état xam ne daal dinay metti ba jéggi dayoo libération ne ma talaata ji rek am na benn immeuble boo xam ne nërmeelu na moom it ca diwaanu Pikine ñetti nit am tey gaañu-gaañu tribune yéene kaay ne ma ab bassin de rétention ca diwaanu Mbàkke xewar ñaari xale lañ fa fekk ñoom it ñu daal di faatu booba ñuy naxarloo faatu yi nga xam ne mi ngi am ci anam yu doy waar ci réewum Sénégal waa grand place ne ma sa xol jeexagul de buñ la limalee indien yi nañuy def feer bu réewum Sénégal gii wallaay boo kar jaagul ma xam ni ndaanaan nga yéene kaay ñuy caxat-caxatee suñu feer bi ay service su état bi nag di leen ci jàppale ñaari société yi nga xam ne Sénégal la ñu bokk te di liggéey ci li ni mel mënuñoo laal feer ndax indien ñoo ci teg seen loxo waxtu woowu nga xam ne fii ci réewum Sénégal trois cent mille ton la ñuy soxla ne ñu cent quarante cinq mille tonnes sax mënuñu koo gis lép loo xam ne ci feer la ko fii ci réew mi indien dañ koy jëlee ci réew mi daal di yóbbu diggante Inde ak Dubaï duñ ko sax jaay sénégalais yi faf waxtu wa nga xam ne ña ngay jooy feer boo xam ne daal dinay manqué amul ci réewum Sénégal cher fi lool moom nguur gi ci boppam moo créé ñaar ci société recruter fan fanweer ak juróomi nit ay licence waxtu woowu ñoom ña ngay liggéey jël fer bi di ko yóbbu Inde waa grand place ne ma nee naa la boo déggee lii boo amul ñaan dëgg cardiaque laas yéene kaay ne ma ñeenti million ci réewum Sénégal waxtu woowu soo moytuwul nag daañu faatu ci mort subite ndax woppu cardiaque lii ko dijee ne ma boobu ñuy liggéey ci santé ñi ngi waaj ñaari fan yoo xam ne dañuy gréew tribune yéene kaay ne ma président Macky Sall moom di waajal ñetteel bi mandat naais média bi ne ma dëgg-dëgg boo xoolee mbir yi ni muy doxee président Macky Sall nag bëgg jël ñoo xam ne dañoo sàcc suñu moomeel leen di jébbal impunité maanaam kenn du leen toppe dara ñoo xam ne ay escroc lañu ñoo xam ne ay reykatu nit lañu diggante 2000 ba 2022 waa ji bëgg leen baal seeni jëf loo ci mënti waxit moom président yoonu ñetteel bi mandat la nekk le mandat yéene kaay ne en tout cas jégalu Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall mii dafa mel ni nag moom président Macky Sall ña nga xam ne def nañu ay guuta ci sàcc suñu koom gi ñoom ñoo ñee nag la bëgg rawale le vrai journal ne waaye tam bëgg a xaajale opposition bi ñoom opposition bi nag saa si tembe faaw ñu boole seen doole doon benn daal di koy nataal ak Ousmane Sonko Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall Bougane Gueye Dany Malick Gakou ak Thierno Alassane Sall yéen kaay bi ne mën nañ muus seen doole de buñ ko deful moom président Macky Sall daal leen caxat caxatee critique yéen kaay ne ma loo ci manti dégg it Karim a ngi ñëw de le quotidien le quotidien ne ma ne loi amnistie yàgg nag réewum Sénégal ca jamonoy Senghor la woon jaarale ko ci Wade ba ci président Macky Sall tey bés bi la journée ca coowal Mamadou Diala ca coowal maître Sey la ba ci tey coowal Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall dëgg dëgg amnistie Sénégal yàgg na ak moom ne en tout cas président Macky Sall li ci boppam neexut a génnee de mi ngi ci daal dinay brouillé nag piste yi kenn xamul candidat lay doon wala droit public ci université Cheikh Anta Diop ci biir turbine yéene kaay daal di may xamal ne ay loi amnistie nag mën na am ci biiram ay mbir yoo xam ne dañ koy làq-làqal la président Macky Sall mbëbët ci amnistie bii gars yi mënuñu koo xam ndax nag la ko ko tax a def politique dong moom moo ko lal président Macky Sall gannaaw amnistie bii dina leen sullil mbóot yoo xam ni maar day taali la ko l'enquête quotidien dina génnee ay feem de ci wàllu politique soxorante gi waaye tam dëgg-dëgg lan mooy politique la nar a wane ci réewum Sénégal libéraux yi ñoom dañoo xaajaloo saa si tembe ci digg bi ñii naan Karim nañ ko amnistie ñeneen naan deful dara satu Diallo ne Karim Meïssa Wade deful dara lu toll ci fukk ak ñeent ciy xam xamle nañ ni Karim deful dara yéen kaay bi ne xalifa Khalifa Babacar Sall moom mës sa yee yàbbi ci coow li daanaka dafa mel ni safu ko sax bu leen fàtte ni jurisprudence bu conseil constitutionnel mi ngi ci waaye bu nu amnistie jéggal Khalifa Babacar Sall lan mooy doon ëllëgu Barthélemy Dias waaye tam bu Ousmane Sonko Walf Quotidien ne saa si tembe day fi gém bi toll moom président Macky Sall nag moo ko jiite moom mooy xool fam ko neexee mu teg ko kan lay neex mu daal di bokk neexul kenn du bokk yéene kaay bi ne ma mi ngi gën a ber Ousmane Sonko ak Mimi Touré Tribune yéene kaay ne ma di xàll yoonu ñetteel bi mandat Sud Quotidien ne xanaa kay muy brouillé piste ñetteel bi mandat bi ndax nag projet bu amnistie bu Karima Khalifa gii daanaka président Macky Sall daf ci bëgg a jaxase xel yi waxtu woowu moom président Macky Sall mi ngi tàggat xeluk nag junni ak fanweer ak benn animal animateur polyvalent waaye tam ay bénévole ñoo xam ne musuñu am diplôme ci réewum Sénégal moom président Macky Sall tàggat na leen diggante 2021 ak 2022 daal dinañ leen di jébbal seenu diplôme ni ki démb ci teewaayu Amadou Ba waaye tam Maimouna Sissoko Khouma mi nga xam ne moo jiite agence bu case des tout-petits yéenekaay bi ne ma animateur polyvalent bénévole yooyee léegi am nañu seeni lijaasa mën a bokk nag ci ñiy ut xëy ci réew mi gannaaw tàggat gi nga xam ne nag tàggat nañ leen ko libération yéenekaay daal di may xamal ne Kaliphone day mujj na ca kaso ba altine lañ koy daal di attee ay jege ñaaleem ñi nga xam ne Kaliphone ci boppam dàqul amal grève de la faim parquet bi it daal di nay sàkku yéenekaay bi ne ma ñu daal di téye aji caare jaw mi nga xam ne dafa jiiñoon Kaliphone viol te dara amu ca ak lu mën a am mbokk yi nan yendoog jàmm te nekk ci jàmm